mu ne li ma doon mébét lépp daal mooy gis dubb gi muy fecc ñu koy tëggal muy fecc maa ngi dox ci gannaaw waaye li ma doon mébét lépp rek mooy gis ñu koy tëggal muy fecc baa xam nu muy feccee waaye yàlla mi dogal yàlla indi benn madam muy jigéen joo xam ne daa yore gone gu ndaw gone gu ndaw googee nag moo dogu ci bëgg a gis dubb gi muy fecc bu ko defee kon yaayam di daal di bëgg a joxe xaalis jox ko borom dubb gi ndax dubb gi fecc xaleem bi gis ko nga xam ne kon madam boobu moo tax ki yor dubb gi daal tàmbali liggéeyam mooy di ko tëggal muy fecc mooy waxu naa fii axasa tàmbali na almurawidu aji tàggat ja yan xuru di tëgg xala duf fi ca ndënd ma darabaatin ay dóor muy ay tëgg fànni yetan yi ko jóg aar moo xaxata ni duñu dalal baynama jalasa ba nga xamee ne diju na ak dubb dubb ga xalaamu axaratihi ci njekkikaayam yurux yi di fuural waaye yusubiru tamuy fuural ba tey fa saraxa te xaacu almurawudu aji tàggat ja suraaxan xaacu xaaliyan guy aji kawe wanaa wala te mu jot li ak dubba dubb ga xasaahu yatam wa fa xamalaxaa te mu yore ko wa ma labisa saxut almurawidu aji tàggat ja an saraxa ca ba mu xaajoo ne ko imshi doxal kama tamshi ni ki doxe al xasaakiru xare ya wa illaa boo ko defut xataatuma dagg rësaka sa bopp fa isaa bi dubbi am ti lu may ci dubb gi rek yadahu ma ngay teg alxasaayat wa xalaa katibihi ci kaw mbaggam wayam shi tamuy dox xalaa qaa'imatayhi ci ñaari tànkam ña alxalfiyatayni yay ko jug gannaaw farihan mbir mu muy ajibeeg masrooran tey ku ñu bégal masrooran tey ku ñu kontaanal nee na fi saasay saasa ki yore dubb gi tàmbali koo tëggal tëgg mu neex dubb gi ci bopp mel ni daal nay xam tëgg mu neex mi jàpp na ko mu daal di àgg suuf ak njekkikaayam moom dubb gi di fuural ki nga xam ne moo ko yore daal di koy xaaj ci kaw ne ko am yet wi mu daal di koy jël dubb gi daal jël yet wa mu ne ko maajal ni nga xam ni moom la xare yi maaje boo ko deful rek ma dagg sa bopp dubb gi daal di jël yet wa teg ci mbaggam tàmbalee doxee ñaari tànk yi gannaawam rek bëgg a maaj ni nga xam ni moom la soldaar yi di maaje te boole ci mbégte lool nag wa binaa an ci ak teg wala ci ak tëgg xalaa ishaaratin ci ak junj minal murawidi gu tukkee ci aji tàggat ji waqafa taxaw na at dubb dubb ga yan tasiru di neggandiku am ran digal jadidan luy aji yees fa isa bi sawti saaxibihi am ci lu may ci kàddu gu boromam bi yaqul muy wax la foo ñel ko urqus feccal yaa batalu yow jàmbaar ji kama tarqus ni koy fecce en famur raqisaati gën jaa màggi jigéen ñi di ay fecckat farafaxate yëkkati ak dubb dubb ga xaa imatay yi ñaari tànkam ña al amaami yëtay ni yay ko jug kanam ilaa sadri yi jëm ci ab dënnam ba axasate mu tàmbali yeta naqalu di déplacé ka déplacé xalaa xaa imatay yi ci ñaari tànkam ña alxalfi yëtay ni yay ko jug gannaaw wataabaxa te continuer almurawidu aji tàggat ja dana xëy ne wataabaxa noonu te sësale almurawidu ixta al awamiri joxe ndigal ya baynama axasa ca ba nga xamee ne tàmbali na ak dubb dubb ga yunafiduha di wéyal ndigal yooyee bi kulli diqatin ànd ak gépp xereñ ànd ak gépp jan nee na ci kaw loo xam ne borom dubb gi moo ko ko junj dubb gi daa xam lim ko junj mooy na néggandiku mu jox ko ndigal lu yees naka mu ne tekk moom dubb gi borom daal di ko ne feccal ni nga xam ne moom la jigéen ñi dàq ko fecc di feccee dubb gi daal tàmbali yëkkati ñaar tànk kanam yi jëme ca dënn ba tàmbalee nag tàmbali nag di déplacer tànki gannaaw yi ni nga xam ne moom la koy fecc di def noonu nag la borom dubb gi wéyee di ko jox ay ndigal lim ko digal mu xam ko def ko bu yéemoo yéemoo yéemu noonu rek nag di wéy waxinda man taxa ba noppee almurawidu aji tàggat ja min xamalihi ca liggéeyam ba jamaxa boole na addarahima dërëm ya wa taabaxa te mu continuer tariqaxoo aw yoonam wa wote moom yan xuru ma ngay tëgg xala duf fi ci kaw ndënd ma baynama taabaatu ca ba nga xamee ni may itam continuer naa tariq yi sama yoon mu fakkiran mbir mu may aji xalaat fi quwwatil insaani ci kàttanug nit wa dakaa'ihi akuk yeewuteem mooy ak moosteem ki yore woon rab bi nag ba mu defee li muy def ba àggal dafa daal di boole xaalisam tegu ci aw yoonam di dem te tëgg am dëndam boole ca mayit nag ma daal di continuer sama yoon waaye maa ngi xalaat daal yàlla ni maye doomi aadama mu yeewoo ni ba mën a tàggat rab yi amut xel te am doole ba di leen jëfloo jëfi ku amum xel loolu yàllaa ko baaxee doomi aadama ma di ko xalaat noonu nag di ci topp almar abu ki wax gaaraas waaye dañ ciy jublu defarukaayu oto wa maxattaatu tamwiini ak jëlukaayu carburant maanaam fooy jëlee gasoil wala essence wala xeet yi ñuy doxale machines yi wala ñu tuddee maxattaatu tamwiin baatub at tamwiin daañ ko wax approvisionnement daañ ko wax ravitaillement wala ravitaaye waaye at tamwiin daal mooy jox kooka la mu soxla ci lay doxal la mu bëgg a doxal wasful mar'a bi melal garage bi yuqsamu def na séddale al mar'a bu garage ba ila aqsaamin jëm ci ay xaaj xadidatin yu bari boo déggee nag garage ji bul defe ne day rek fu ñuy gaare sa oto ci kër ga daa am foo xam ne dañ fay defare oto yi ñu koy tuddee garage mais nag boo demee ca fa ñuy defare oto yi defarukaay ba dañ koy def ay xaaj-xaaj yu bokkut tu xasas def na jagleel naaxiyatun ak wàll min hu ca moom li adawaati taslihi ñeel jumtukaay defaraat ga ñeel jumtukaay dépaane ga tuudaxu def na teg fiihaa ca wàllu googee alxasaa'inu ay armuwaal awil lawxaatu wala ay tableau tuàllaq yoo xam def na wékk xalehaa ci ñoom mafaatiihu ay kale ingilisiyat ni ko jóg anglais muxtalifatul qiyaasaati yu dee wuute ay dimension wal ashkaali ak i forma mafaatihu ingilisiya ji mu wax dañ koy wax jublu ci ay kale yoo xam ne moom lañu dindee wiis yi boo bëggee dindi wiis yi kale ya nga koy dindee dañ koy tuddee mafaatih ingilisiya dane boo ñëwee ci garage bi am na ci wàllu goo xam dañ koy féetale dépanne ñu teg fa ay armuwaal ak i tableau armoire yi ci la ñuy teg yenn pièces yeeg yu demee noonu ak yenn jumtukaay yi tableau yi nag dañ ci wekk ay kale yoo xam ne bu ñu bëggee dindi wiis yi moom la ñuy jël dindee ko ko xëy na seetlu nga ne ba ci sareet yeeg machines yi diq yeeg machines yi ji sax dañuy am ay kale yoo xam ne moom ngay jëfandikoo booy defaraat tustaamalu def na jëfandikoo almafatihu kale ya li xallil xasqaati ngir démonter pioche ya aw shaddil xasqaati wala ngir jàppale pioche yi toobaxu def na teg fil xasaini ca armuwaal ya mi fakkaatun ay ñiim ay ñiim ay dindiwukaay lil baraax yi ñeel biis ya muxtalifatul xiyaasaat yi doo wuute ay dimension fil xurfati nekk na ci sàmbar ba aydan ba tey adawaatul ay jumtukaay xadidat ni ay ji limu tustaamaal yooyu def na leen jëfandikoo li xalli ajsaa i sayyaaraati ñeel démonter xaaji oto ya aw jamhiha wala seenug boolewaat daa wax ni armuwaal yi moom dañ cey def xeeti ñiim yi xeeti ñiim yooyu nga xam ne moom la ñuy dindee biis yi wala nga ne wiis yi dañoo wuute ay tolluwaay ba tey nag boo duggee ci biir sàmbar ba am na yeneen jumtukaay yoo xam ne bu ñu bëggee démonter oto bi moom la ñuy jël démonter ko ko maanaam teqale xaaji oto bi def ko pièce pièce ba tey bu ñu bëggee jàppale pièces yi itam jumtukaay yooyu moom la ñuy jàppalee pièces yi oto bi. ci gàttal daal am na ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu bëggee démonter oto bi ak bu ñu ko bëggee monter yépp rek jumtukaay yooyu lañ koy defee xufratu taslihi taxum defaraat ga indama tusaabu saa yu xam dafa jot a sayaaraatu oto ya bi xalalin ci ab paan fi ajjisaa ihaa ci seeni parti mooy seeni xaaj ak suuf laa ya féete suuf yi di way suufe mbaa nga ne gën a suufe tu waqafu def na ko taxawal wala def na leen taxawal ñoom oto ya fawqa xufrati taslihi ci kaw paxum defaraat ga yaqifu dana taxaw alxaamilu aji liggéey ja muy kii deppaane fil xufrati ca pax ma biir tiyaahin ànd ak sigré mooy ànd ak bëgg ak maare yu sàllihu dana defaraat aw yu baddilu wala muy sansé al ajsaa xaaj ya bi suxalatin ci ak yomb yàlla bas dana sol alxaamilu aji liggéey ja tiyaaban ay yére zarqa yu aji bula xaasatan yi spécial boo demee ci gaaraas ba day am foo xam ne dañ koy wutal am pax moo xam ne oto bi ñuy defar bu fekkee lañ cee defar daa féete ca suuf li suuf du aajowoo ñi ko yëkkati ko tóoj day ñëw rek taxawu oto bi tiim pax moomee su ko defee nag ka koy defar dugg ca pax ma ron ko xool nag ya nga xam ne moo ci yàqu bu dee luñ mën a defaraat mu defaraat ko bu dee lu aaj bu dee lu aajowoo changé mu daal di koy changé la neexee ne aw yu baddilu wala muy soppi al ajsaa pièces ya mu ne nag ñuy liggéey ci defar oto yi ñu leen di wax ay mécaniciens dañu faral di am seen yére yoo xam ne bula yu ñu leen di xàmmee islaahul muharrikaati defar moteur ya yatatallabu dana sàkku islaahul muharrikaati defar moteur ya fahman ak xam wa taxassusan akuk spécialisé wu yu diiru dana tourné alxaamilu mécanicien bi aju liggéey ja almuharrika moteur ba yuraaqibu dana contrôlé alxalala paan ba yuslixuhu dana ko defar aw yu baddilu wala muy changé qita'an ay pièces mukassaratan yu dañu dammate bi qita'in ci ay pièces jadidat ni aji yees tulhamu def na suude ba'dul qita'i lenn ci pièces ya al mukassarati ya dañu dammate bi oxygène ci oxygène mu ne defar nag moteur moom yombut dana aajowoo kooku am xam-xam ba bu baax a baax ci wàllu moteur nga xam ne daa féetale xam-xamam ci googu wàll doon ko jàng ba ràññiku ca su koy defar nag day tourner rek moteur bi di xool ba seen paan bi bu dee paan bu ñu mën a defar mu daal di koy defar bu fekkee ne nag dafa am ay pièces yu dammatoo faaw mu changé ko indi yeneen pièces yu yees ba tey it dana di suude yenn pièces yi nga xam ne ñoo damm bu koy suude nag li ñuy wax oxygène moom lay jëfandikoo taxsiilu sayaaraati lii moo di raxas oto ya fii zaawiyati nekk na ci ab koñ min zawaayal mara bi ci koñi garage bi makaanun place li xasli sayaaraati ñeel raxas oto ya yusallitu dana jëmale alxaamilu aj liggéey ja wala nga ne employé ba um boobal maay ci ndox ma xàll sayaarati ca oto ba tusiilu dana dindi almiyaaxu ndox ya almutadafiqatu yi aji dotti yi aji jiñu min hutukee ci tewo bi di xasaaratin ànd akuk bari dana dindi maa lépp loo xam ne xaliqa taqoon na xàll sayaarati ci oto ba minal aw xaali ci ay xeeti ban wal xubaari ak pënd lu jëm ci raxas oto yi bañ set moom nee na li ëpp ci garage yi boo ci demee day am benn koñ boo xam nañ koo féetale raxas oto yi ki koy raxas day yore teew boo xam ne ni muy génnee ndox day am doole lool nga xam ne bu jëmalee teew bi ci oto bi rek na ndox may génne te am doole lool lool mooy daal di dindi lépp lu takkoon ci oto bi ci xeetu ban ak xeetu pënd maxattatu tamwiini station bu carburant taqaw dana tàbbi mooy dana nekk maxattatu tamwiini jëlukaayu carburant yi wala nga ne station yu carburant yi ak tamwiin ci boppam nag firiwul carburant ak tamwiin mooy jox ko la mu aajowoo ni ñu koy waxee ci tubaab nag moom daa xaw a kii tuuti dañ koy wax approvisionnement approvisionnement daañu ko wax itam nag alimentation alimentation ji moom moo gën a neex a wax ravitaillement it daañu ko ko wax xinda madaaxilil maraa'ibi fa bunti garage ya aw takkoonu wala ñuy nekk mustaqilatan di aji boru aji temm mooy mustaqilatan mooy nekk ci seen bérébu bopp dana béréb yi ñuy jëlee liy doxal moteur yi muy gasoil muy essence muy leneen léeg-léeg ñu def ko ci buntu garage yi mu dend ak garage yi léegi-léegi itam nag ñu nekk ci seen place bopp ku soxla ñëw fekk leen fa nga xam ni daal nekkuñu ci buntu benn garage lil maxattati ñeel na station ba xasaamum ab réservoir kabirun bi aji rëy lil bansiini ñeel essence yóbbu naa bu def na ko tabax fil ard ci suuf tun sabu def na samp xalaa wajhil ardi ci kaw suuf saaxatun ab compteur tattasilu boobu dana jokku bil xazaani ci seru waar ba tuqaddimu dana wane asaaxatu compteur bi albansiina tolluwaayu essence ba man nga ne tuqaddimu dana présenté asaaxatu compteur ba albansiina essence ba warta dullu te muy tegtale xalal kamiyati ci quantité ba ci tolluwaay ba alxaarijati bi aji génn lil mahattati ñeel na station ba xurfatun ab sàmbar ab néeg fiihaa bu nekk na ca xolabun ay boîte li zuyooti ñeel wiil yi wa shuhumi ak gerees yi wa min faxun akub pompe li dab ci daxti ngir takk ngelaw la fil xajalaati ca pënu ya day wax ci mbirum bërëb buy joxe carburant maanaam gannaaw ba mu ne bërëb yi joxe carburant mën nañoo sës ci garage mën nañ caa bañ a sës mu ne station ba day am ab aseruwaar ab defukaay bu rëy rëy boo xam dañ cay sol essence ndegam essence la ñuy jaay foofu bu dee gasoil moom bu dee leen noonu réservoir boobu dañ koy tabax ci biir suuf si mu defub kaaw dana nga xay tuddee ko xasaan ab kaaw bu rëy rëy bu ñu def la ñuy jaay ci bensine muy essence mbaa leneen ñu taxawal na ci kaw suuf si benn compteur boo xam ne day taq ca kaaw boobee wala nga ne réservoir boobee nga xam ne moom buñ dee jaay gasoil mbaa ñuy jaay essence compteur boobu ci la ñuy xool di jàkkaarloog njëg gi nga xam ne moom la ñuy fay di jàkkaarloog tolluwaay bi nga xam ne moo génn gun ci la ñuy jaay nga xam ne bu dee nangami litre la ñu xam nangami litre la loolu lépp compteur bi moo koy wane station boo gis nag li ci ëpp na di am ab néeg boo xam ne dañ cey def xeeti huile yi ak xeeti graisse yi boo soxlaa ñu jaay la li ci ëpp dana di am pompe boo xam ne moom la ñuy pompaate pënu yi ko xam sa pën dafa manqué ngelaw ba amul ngelaw boo dikkee ñu pompal la ko nga fay mu jaalu si ci at taw sion fii fasli sayfi ci jamonoy été almaadi bi aji wey kuntu nekkoon naa mu tawajjihan di aji jublu bi rifqati walidi ci àndaaleeg saa baay wa baadil musaafirina ak lenn ci way tukki ñi ilal jabali jëm jabal jabal dafi aw doj waaye daa mel ni foofu moom ëpp rek la fa wa kaanat nekkoon na sayyaaratuna sun oto bi tanhabu di giir al arda suuf sa nahban ak giir mutasalliqatan mbir mu muy aji ñàpp murtafahaati xaaliya tundi xaaliya wa dawaaxiyaha ak ay banliya muy ay peggam ci été bee jàll dama ànd nag sama baay ak ñeneen ñuy tukki ñu dugg ci oto jëm jabal sa oto bi nag gaaw loolu mel ni daal day giir yoon wi ak keneen bañ koo ko ëppale ko ci muy yéeg nag montagne yi aaliya ak banliya pegg ya faj atan ci lu bett rek tawaqafat taxaw na ak sayaaratu oto ba ani sayri walis dox fa tarajjala te wàcc doxog tànk as saaiqu sufóor ba war a faxate mu yëkkati xitaa al muharriki kapootu moteur bi wa axasa te mu tàmbali yabaxasu di gëstu xan sababil xalali wali sababu paan nga la àllohoo ndax lee moom yastatihu dana man islaahahu ak defaram lakin na juhoo dahoo waaye nag ay coonaam dahaba dem nañu ak xaddaraja riyaay yi ñu taxañi ngelaw yi maanaam lu ngelaw yi taxañ rek sànni suñ ne nangam dahaba adraja riyaax rek mooy dem na ci lu dul benn njëriñ ni ki sonn na sonn waaye coono ba amul benn njëriñ dane ci lu bettee bettee oto bi daa jekki-jekki taxaw suufóor bi wàcc dox ak tànkam yëkkati kapot bi di xool moteur ba xam dana xam paan bi mu déet waaye la muy sonn sonn xamul dara ci paan bi ba di ko defar inde daalika fa loolee la may jit amut ak saayiqu suufóor ba puddan ak jaas minal istihanati ci dimmandikoo bi sayaarati shahanin ci ab oto remorque iqtaadat ba boo mat na ak sayaarata oto bi ilaa aqrabi marabin jëm ci gën jaa jege yi ab gaaraas yàqamu boobu dana tàbbi maanaam boobu dana nekk rek xala tariixi ca kaw yoon wa xala tariixi ca kaw yoon wa alxaami wi public maanaam route publique route bi nga xam ne daal yoonu mag la ñu bare ci aw wama inistaqarrat teerut maanaam taxawut as sayaaratu oto ba amaamal mar abi ci kanam garage ba xataa daraba ba def alxummaalu mécanicien yi nitaaxan ak ndoom ba xawla muharrikiha ci li wër moteuram ba bi ne dara ba an nitaaqa xawla nangam mooy rek wër na ko ndomba wër ko ci wet gu ne wa axasoo te ñu tàmbali yu diiroona xoo di ko tourné wa yabaxasoona te ñuy gëstu anil xalali walis paan ba naka oto bi agsi ci kanam garage bi rek mécanicien yi daal def ak ndomba wër ko wër moteur bi tàmbali ko tourné bëgg xam la ca sikk baada juhoodin ci gannaaw ay coono xayri xalilatin yooyu du aji néew tamakkana jekku na almuallimu maître ba al aliyu bi ab mécanicien min iktishafi qitxatin ci xàmmiku ab pièce saxiratin bi aji tuuti maksuuratin bi di bu ñu damm fastabdalaha te mu sansé ko te xitxatin ci ab pièce jadidatin bi aji yees tuma amara topp mu digal assaaiqa sufoor ba bi idaaratil muharriki ci tourné moteur bi fa daara te mu tourné bi quwatin ànd ak doole wa nachaatin ak activité maanaam daal xaw nañ caa sonn gannaaw bañ ci sonne ab diir daal maître bi nga xam ne mooy jiite mécanicien yi moo xàmmiku la ca sikk muy benn pièce boo xam ne bu tuuti la waaye dafa damm daal di koy changé indi beneen def ca bu yees daal di wax sufoor bi ne ko tourneel moteur bi naka mu taal rek tourné rek moteur bi am doole lool mel ne mësta sikk fa naqada te fay assaaiqu sufoor bi almuallima maître mécanique bi ajrahu payam wa taabaate mu continuer tariqahu aw yoonam sufoor bi daal di fay maître mécanique bi maanaam kilifa mécanicien yi moom la sufoor bi fay la mu ko war a fay daal di continuer aw yoonam nag moom sufoor bi wa fiima tutaabihu ci biir la nga xamee ne ma ngay continuer as sayaaratu oto ba sayrahaa ab doxam kuntu nekkoon naa u fakkiru di xalaat fii faaidatil maraibi ci njariñal gaaraas yi alhamati public wala hummaali ak liggéeykat yi al aaliyiina ña di ay mécanicien idi ngir lawlaahum burul koon ak ñoom lan xalabat kon walbatiku sayaaratuna sunu oto bi ila majmuhatin jëm ci am mbooloo minal kutali ci ay jal alxadidiyati yi ko jóg weñ gu ñuul laa tasluxu du ñu yiw li shay'in ñeel dara mën na it la mooy nag bi oto bi baaxee bañ dem ba ci yoon yi nag sama xel di xalaat daal garage yu mel nii ni ñu amee njariñ nga xam ne boo geesoo rek gis leen ak it ña ciy liggéey te xam mécanique nañ amee solo ndax nee na bu fekkoon loolu amutoon tey ji sun oto bii day mel ni rek kenn du ko jariñooti benn ñu jaay ko kooko def ko ay pièces détachées def ko ab jal fële di ko jaay benn benn mbaa boog ñu gaare ko rek mu ne këlëg noonu rek kenn du ko jariñooti bu toon daal garas yooyu ak ñi ciy liggéey te mën a defar moom noonu rek la sunu oto bi di mujj walakin nii waaye man nag in asiftu ndem metit lu naa mooy asifa jàq na jooju ngay dégg